dina nu nguuru ak moom sunu ko weddee kon mu weddinu sunu ko ñàkkee kóllëre moom dina sax ci kóllëreem ndax mënula weddi boppam saxal di leen fàttali mbir yooyu di leen dénk fa kanam yàlla ñu moytoo werante ci araf ndax loolu jëmul fudul ci yàq nga mu ñiy déglu góorgóorlul ba teew fa kanam yàlla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 ba sóobuwaat ci coobareg yàlla